sama xel day dem ci à l'époque ñoom Cheikh Sakho ñoom Ousmane Diop booy bandi. foo fàtte mbay Fall. Mbaye Fall. foo fàtte Mbaye Fall. ndeysaan. yow foo dëkk nga ne. yaraax dama lay xelmati sànq ba tey daf may nuroog doomu Eusebio. Eusebio waaw waaw Eusebio da ngeen xaw a xelmati. xaw a xelmati. ndeysaan xelmati eh, yaraax nga dëkk. ah d'accord. d'accord mais papa yaakaar nga ni lii bu continue nii est-ce que jour yi du nagam. dañuy nagam dañuy nag gis nga mag gis nga lu mel ni mu sa fi am Gia ak jaraaf di joué. Gia ak jaraaf. mooy cag ah. sama xel dafa dem ci Jules François Bocandé. François Bocandé. yal na ko yàlla xale yërëm gis nga Casa da doon joué Jeanne d'Arc. Jeanne mu am conflit bu mag ci stade bi. Mhm. ñu daal day tëj stade bi. ndeysaan ne dootul bu ñuy fubalaat match bi dafa yàqoon. bu ñu ko mhm. fubalaat ñu ko def à huis clos. à keroog laa xam ne ndekete. Mhm. footballeur loo ay aay boo gisul supporter doo dem. ndeysaan keroog boo déggee ñu ne ballon récupéré par Alfred Diatta. Alfred Alfred Diatta nga xam ne mu sam téebal dafay téebal xool supporter yi. ñu ne ko allez Alfred mu daal di dem dégagé jox sur le long central. laay laay boobu Paul Mendy fay taxaw. Paul Mendy. waaye keroog da ngay gis stade bi ñun ñi nga xam ne ñoo doon reporter. ndeysaan dañuy mujj sax nelaw daanoon lor yi. Oh, papa moo tax moo tax gis nga football. il faut mu ànd ak supporter. dëgg la barki démb laa tase teg sa xarit moo Koulibaly. Modou Koulibaly. xam nga Modou Koulibaly. moo Modou Koulibaly ñoo dëkk di. est ce que xam nga ne léegi quincaillerie la yor. quincaillerie la bu mag la yor léegi bàyyi na sax affaire football ba léegi quincaillerie la yor. ah moom loolu bu ko defee dina ma jaaxal mais papa wax dëgg yàlla ba nu waxtaanee léegi léegi. maa ngi tasanteeg Madi Dramé. bu Youssou Ndour. ma Madi. Euh, est ce nga ne football na Saint-Louis. Linguère bu Saint-Louis. le grand Madi. Madi Dramé bu euh, orchestre euh, bu yor Youssou Ndour. Youssou Ndour mais il a joué Linguère nga dafa commencé ay waajuram woo ko na ko bàyyil football bi. Oh. parce que xam nga moom dafay dem diggante moo eh? ñu daal di koy porté. ndeysaan <laughs> daal di koy porté. na ko yow ñaari nationalité nga am. Oh. Saint-Louisien ak nationalité waa Nord Sud. xoolal doo doo eggali sa carrière ci la oh. daw ñu ànd ak Youssouf. moo tax ma wax la. Mm-hmm. barki ba sax maa ngi koy wax xam nga Mara Dieng. grand waaw mais père Mara. parce que naan moom mu ne ma léegi. dama commencé ibbi daralu xar. daralu moom ca xar yi bàyyi na kenkaayri. non non non non maa di ba mu def. loolu jaay ak euh, euh, kii matériel musique. matériel musique xam moom dafa nekk dafa yàgg ci musique. ok mais ancien joueur la boo xam ne attaquant wu Diourbel. ndeysaan ndeysaan laaj ko Demba Sadio. laa ilaaha illallaah mu jàppal ne nawetaan bu maraajee football kenn du ñëw stade. da doon téebal dëgg ko téye ko bu gëstoo gis Sadio Dembélé jox ko Dembélé na ko Mara mu na ko jëng mu dugal bale ci biir la ilaha mais yëg nga ne Ali Baba Ndiaye euh, dafa dafa dafa ibbi ken kaayeri Touba ah Ali Baba Ndiaye bu nekkoon njaareer te addi doon ah, rastral bu saf-saf moom la def loolu xam nga ko Ali Baba Ndiaye Ali Baba Ndiaye Ali Baba Ndiaye moo jëloon coupe euh, coupe coupe euh, ligue des coupe d'Afrique ligue des champions bi nga xam ne moo amoon ci Accra waaw léegi dafay jaay kenkaari côté côté Tamba oh, yow Sawdu Ndiaye laa lay fàttalaaj Sawdu Ndiaye maanaam Sawdu Njaay ma ah waay papa dit waay xaaral ah. ma ñëw Sawdu Njaay men yëgoo ne dafa am kenkaari léegi Sawdu Njaay fan la ubbi kenkaari <laughs>